ñu war a yor réew mi téye ko ñu xam ñi diina ñu ñor ak ñi diina ñorul diina dafa am ñu ñor ak ñu ñorul ku diina ñorul nga màgg ci réew mii nga ni diina ñor na la nga dem ba am juróom fukki at ak nangam te mënoo xam salaatu ala nabi wala salaatul fatiha nañ xam ni kii diina ñoru la moom diina ñor na ko buñ demee Poroxaan sëñ mu Moustapha Basir barke sëñ Mamba lii moom waxuma ko man lu ma bëgg xam ci yoonu murit xam ko yii may wax yëpp moom waxuma ko lu ma bëgg xam ci yoonu murit xam ko daaray sëñ Moustapha Bassir Dieng daaray Porokhane Maam Jaara la ko sëriñ Moustapha Bassir tabaxee ay simaam moo ci njëkk a tabbi ndax nekkoon na PCA bu Sococim. seetewul la dara lu dul dégg sa tur rek ndax du du xam ma xam goo xamante ni moo tax ma yëkkati la tey maam ñu ma àndal nag ñu nekk ci sama ginnaaw ñu fonk ma lool ma fonk leen lool muy tëyaru si kàmbaaw yi. oto bi nag xaw a jàmp lool ndax barke bi ci guddi lañ ma woo wax ma ko mayor malaat la ceeg gëjoon naa xëy ci marché bi bi ma ñëw démb heure yi ma ñëw di ko wax tailleur yi leen informé fekk ma fi ñu bëri tey la dimanche dëkk bi ni mu demee koñ bi tamit am dëj euh, ñuy jaal borom ñuy kii guddi gi guddi gi ak heure bi ñu waxoon nag yooyu yëpp daal ñu koy jéggalu parce que 5 heures lañu waxon nit ñi té lolu moy lolu heure bi yalla rek xam ni mu démé ni mu lay sante di la gërëm di la ñaanal di la wax ne and bi ci ni mu commencé ci man ak ni mu ñëwee ci man man dama ci contane ndax ki may andal muy sama xaritu benn bakkan muy may moma wo ben benn guddi nama ami mana wa mu nama ci lo nek ma ne ko ci lan mu ne ma ci loo nekk ci politique bi ma wax ko ko mu ne ma ah maa Ibra nee na nañ jàppale Boubacar Camara ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko même bu dul loolu maag yow mënoo taxawee ci gox bi nii ma taxawee nii mësul am te mënul nekk kon man maay bàyyi ki ma jàpp ñu jàpp ci ki maa Ibra wax ma xamaat ci yow ñu bëree bëri ñoo xam ne nag. seen kàddu jógewaat na ci ñoom ñëw ci man ci jàppaleel Boubacar Camara muy Aziz mi ak kii Mor mii dañ mas a tase séminaire mu jëloon sama numéro Mor woo ma muy benn wax bi Mouhamed Niang di ndijaay ci man woo ma waxaat ma muy benn wax bi mais ñoom ñëpp kenn ku ci nekk boo ma waxee ma ne la ah tombe na ndax may nee na moom lay àndal te mosuñoo tàqalikoo ci politique kon noonu lay demee mais nag ma ñëw ci samay tëyër ñi nga xam ne ñoom laa jiite ci marché bi waxtaan ak ñoom bi ma waxtaanee ñoom ne leen ah man de am na koo xamante ne nii bëgg naa dugg ci ay mbiram ndax duggatuma woon ci politique mais am na koo xamante nii daal am na loo xam ne moo ma ciy dugal waxtaan ak ñoom ñoom tamit ñu ne ma bismillah ñoo ngi ci sa ginnaaw léegi nag bi ñëw bi jàmpee ba jàmp comme ñëpp mënuñoo ñëw ma wax ko samay mbokk sama nijaay a ngi nii toog góor a mi sama mag la Nogaye mi responsable politique la May Dieng mi ngi nii ak sama xarit yi toog samay dëkkandoo tey koñ bi ni mu demee la dëj am fi léegi la nit ñi fatu mais bu dul woon loolu kon dana deme neneen mais ma lay wax na la daal ñëw bi kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax ñi ma booleeg yow ñëpp tamit wax dëgg yàlla samay nit lañ kenn ku ci nekk am na foo ma féete. ba tax boo ñëwoon rek dama jàppal te xaw ma ko damay jàpp te mu boole ceeg am ñoo xam ne xam nañ la xam ma jege nañ la jege ma ñoom Aziz ñi toujours dañ may wax ma ne ah ma man damaa toogoon de ñu ne ma noo da ngay jóg comme ànd ngaa may ci lii te maye ngi nii maye ngi ci biir dangay jóg te yàlla dogal man ak may ñu ànd ci xale ba tollu nii ànd bu rafet nag. te dara duñu taxale te comme ci yow la nekk ànd ak yow wax ma ay décision wax ma ne ma carrément ami ma ne ko waaw mu ne ma décidé naa man yow nag ma ne ko bisimilah léegi nag man sama mbooloo mi nga xam ne mooy tayeeru Sicap mbaaw yi di jàmm gën Sicap Mbao kon man mbirum artisan rek moo ma neex ba kuréelu artisan yépp nag ci Sénégal bokk naa ci presque mais nag comme Sicap Mbao fii moom man artisan yi fi nekk maa leen téye man ñoom laa la présenté ñoom ñoo ma ñor te lu ma dugg lu nekk bëgg naa leen dugal ci biir comme ñoom lu ma wax ñu ne bisimilah ñoom tamit euh, daal ñooy sama njaboot daal dénk naa la ko. nuyu naa la bu baax nag président di la sant kontaan bu baax nag waaw di sant ñi nga àndal ñëpp sa staff niñ may woowee gis naa ko gis naa niñ ma ci dugalee leena ñoom ñëpp daal maa ngi leen di sant moor ak kii ñoom daal ñoom lay sant. sant bu baax nag di sant lii nga def mooy sa wareef ma kontaan Nelson Cheikh Ibra Fall kim nu booleel kooku la xale yépp wax ni moom la kim nu booleel kooku moo bare diplôme te woyof ba mel ni suuf kim nu booleel kooku mooy ki nga xam ni ragal na suñu borom maandu na nekk na ku baax kon may vous avez la parole. mbooloo mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp. di kontaan di jéggalu nag ndax ñun jàmm gën si kam mbaaw dafa sori président di la dalal jàmm di nuyu xaritu aminte yeeg téyeeru aminte yi ma fi fekk di nuyu délégation bi ànd ak man man moom damay nuyoo rek ndax dafa am sama papa ju ma àndal nekk ndax dafa am dama am kilifa goo xam ne ci politique du ma bougé te ànduma ak moom te bi may ñëw dama ni ko kaay gunge ma ndax président dafa war a seet si aminta femme te Aminta nag di kenn ci man comme ni nga ko waxee dañoo yàgg maak ñoom Aminta Fam ñoom Khady Konaté ñoom Mounas Dabo ñi président àndu xale la ñun dañoo ànd ànd bu rafet ñoo ngi nii toog yéen du ngeen nuyu seen yaay faalu prési yi du ngeen nuyoo <laughs> ana baay faalu prési yi ñoom Ifra ñoom ñëpp dañu dama leen ni <laughs> leena yi leena maa ngi lay nuyu bu baax waa di nuyu waa yëmbal lay mais xam naa xaju ci mais dama koy présenté moom tamit moo yor tailleur yi nekk prési moom moo yor tailleur yi nekk euh, maam jaara sama koñ yow da ngay ñëwaat man xam naa loolu ndax li ma li ma bëgg a wax sax xaju fi dangay ñëwaat pour Mbaye Dieng ak ay nitam bu ma kenn mere ñëpp waroon nañ jël parole mais sama papa ji moom dina jël tuuti parole muy Pa Sow mais ñëwal nga wax tuuti waa yëmbal yéen tamit nuyu naa leen nuyu naa ñëpp daal kii nag mooy président Boubacar Camara kii li ñuy wax ci moom sax li nekk ci moom moo ko ëpp sànq papa nee naa la kii li muy wane li nekk ci moom moo ko ëpp te mu nekk lu dëggu ci moom ndax dañoo ànd tournée Touba macha allah kii ku ko def président def ku mat a def président kii bu yoree réew mi nag coono yi jeex sànq géwal yi dañuy bajat euh, ma di leen nag bis bu président bu ka ma nekkee président yéen géwal yi yéen ñëpp dootu leen wër di togg dootu leen wër di wayaan te loolu ma wax moo nekk kii ku fal fal gor ku ko fal fal yaaram sama xol ndek dafa mënu ma wax lépp daal mais dinañ daje incha allah yow di nga ñëw talibaab jaara aminta ne kontaan naa bu baax ndaxte li mu wax dafa rëy mbay foo bokk ma nekk fa xam nga tey mënoon na ñëw di diiranteeg man mbagg mënoon na ñëw di defanteeg man mais defu ko nekk dani ma ñun ñii suñu ànd dara du ko yàq mbay man boo ma waxee ni maa Ibra nee na nga ñëw jàppale président damay ñëw kon loolu lu rëy la maa ngi ko ciy sant di ko gërëm yéen ñëpp ñu sant naa leen bu baax merci bien ma fille. doguma la yàlla bu la kon asalaamaaleykum. lu amul seet neexul. ñu ngi lay nuyu. maa ngi ciy am kontaan parce que gis naa kenn ci seen délégation bi ku ci rax muy son mbokk mi di Aziz ñu bokk si Kambaaw jàmm gën ñu xamante sur le plan politique vraiment ma di ko di ko def contentement je vous remercie. Euh, gannaaw bi santé yalla ci sallallahu alayhi wasallam euh, pour dafa xat ma xamal depuis 4 heures nous sommes là 4 heures là. nous sommes là parce que à 4 heures vous venez donc depuis 4 heures ñu ngi fi julli vous dila nek comme dégg programme je rek résumé le troisième âge le délégué des quartiers Mahan qui est là-bas, avec Henri Fay qui est là-bas, avec euh, M. Diata, Adrien Diata, nous sommes du troisième âge, nous sommes fekk ci suñu doom ji li may wax moy deug parce que ñun la won demb ak barke demb avec son père son défunt père yalla ko yalla yeureum ñorol and bi papam la ko bayiwuñu ñu yag and nak diko ngem diko jappalé ci lu nek nak may nak moom itam ñëw fekk si Aminata Pam mii di xaritam di doomi ndeyam ne ma paasaw nañ ñëw di nga am ci xew boobu di nga am jàpp ci mais li ma ci mën a wax rek ñun sawar nañ ci parce que li may wax ma ne ko ma ne ko Boubacar Camara kuy seetaan télévision di déglu ci média yi ñun ñu lay suivre xam nañ la bu baax moo nag mënoo ñoo xam mais ñun avec les médias xam nañ kan mooy Boubacar Camara lii ngay wax nag ñun doy la nañu li nga wax yëpp sa programme déglu nañ sa programme en résumé ku yërëm Sénégal ku bëgg a suqali Sénégal bu ko dindi li fi nekk ñun ànd nañ ci à 100 pour cent ànd nañ ci à pour cent à 100 pour cent xam nañ nag social bi ngay doxal fii gis nañ ñit ci jàkka yi li ngay doxal parce que nopp amul kubéer moi je sais très bien kan mooy Boubacar Camara loo tax ba mu ci waxee dama ne ko sans condition dañ lay jàppale maye nga ñëw jàppale amante pam di nga am on fait le maximum incha allah lolu xam nañ la bu wër la ngay def ci jakkay yi dem bo jay nga ñew fee ci suma juma jefee nga may ñu carton tonnes ciment boole ci xaliss té pourtant j'étais dans le public et xamoma donc ak lénen ak ak lénen lu mu mën wax mé ci gattal damay freiné fofu waye ñun yalla yalla suñu borom subhanahu wa taala ya xam li nga bëgg yalla la fa yalla yobbu ñun itam suñu njort it wax deug yalla ku melni yow lañ bëgg parce que li ngay wax vraiment on est à 100% parce que nous sommes souffrir souffrance suñu souffrance nous sommes à 100% avec vous. di xamal na nga peut-être que y and mais xeyna amna lo xamal ci mais ñun ak législature yo à moins de quelques kilogrammes de qui député depuis longtemps maa lay seede ah mënoon naa député yi depuis longtemps ñaari législature yoo xam ne ànd nañ ko yaa ngi dégg bu kii ko mais xëy lu jot yomb li Wolof Njaay di wax lu jot yomb xëy na peut-être yow lay xaar ci sa législature incha allahu mu doon député kon daal ci gàttal nous sommes contents euh, dalal ak jàmm fi mais saa yoo ñëwee au niveau de la SICAP di nga am ba mu dalal la bu boobaa da nga xam kan ñooy mooy paasoog yooyu ci diggante bi Aziz xam nañu ñun lii lañ fi nekkee ñun développement mu ñu teg ñun Sicap mbaaw jàmm gën moo ñu ñor moom lañ soxla moom lañ ñu suqali nous avons tas de problème booleeg encore ak coono ji nekk fii au niveau di nga national kon nag lii nga mëbët daal yàlla na ci yàlla dimbale yàlla ci yàlla jàppale. su ma fekkee président fu ñu ko wooyee léegi léegi léegi léegi damaa juli tàkku saan ba pare laa yëg affaire bi maak sama xarit bii ñoo ànd damaa tëb sanguwuma sax damaa so summeeku rek soo yëlee daw ne man président bu ñëwee ci commune bii. su doon damay raam sax dinaa raam ñëw fekkee ko ndax président damaa bokk ak yow ci biir bokk ak yow ci bit su ma yëgee sa programme boo ma ko yëgul sax damay ñëw ndax président man jigéen ñi rek a ma ñoon jigéen ñi ñoo tax may kii ma ma may jug ci yëngu ci politique di def si développement président nga jàppale ma jigéen jee toog un million laa koy financé suba yaa ma jàppale démb sept millions laa joxe ndax yow barki sëñ Babacar Si du dala taxul may fenn wala dala man dama lay dama dama laa bëgg ba su ma yëgee sa yëf damay daw ñëw su ma doon laam sax dinaa laam ñëw léegi léegi ngom moo ne ma ñoo ngi départ nañ ma daw ñëw lu yekkalaandoo ne ko yóbbu ma ndax yow foo taxaw dama fay taxaw maag yow ba may jaay sama yére président pour ànd ak yow ndax dang maa ñor yal nañu yàlla defar jàmm rek looloo taxoon may naa ci wax. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah salaamaaleykum mbooloo mi yéen waa jàmm gën si Mbaaw kenn ku si nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa sant président maa ngi lay nuyu vraiment maa la gën a kontaan euh, sama xol sedd na euh, ndax lii moom euh, vraiment nekk na mbir moo xam ni dañuy wax ni li fi xew moo waral mu demee nii waaye jàpp nañ ni bu du woon ak lii fi xew buñ ko waajalee dana gën a yaatu ba nga xam ni boo ñëwee di nga fi fekk mbooloo mu bari di la nuyu di la dalal. man kenn du ma wax kan mooy Boubacar kamara man kenn du ma ko wax du ma ko laaj fii kenn parce que xam naa ko jëflante na ma ak moom dem naa permanence am seet si na ma it te seeraas ga may liggéeyee fekk fa samay kilifa fekk fa samay nit fekk fa ñëpp ma présenté ko ñëpp ba fii may wax ak yow fu ma tourné ñu ngi may laaj Boubacar Camara donc amintami di sama rak ñu bokk bàyyi. démb ci ngoon la ñu gisee waxtaan ma ne ko yow dey boo soxlaa ak lu mu mënti doon man damay dagg sama lépp fekk si la parce que ndakaaru boolewuñu parce que bu tey ndakaaru tasoon ñooy ànd dellu ca Kajoor nga ñu jóge woon euh, ma koy sant mu doon xale bu baax ku bëgg mbokk euh, ku laa biir ku am yërmande ku am sutura euh, kuy waxtaan ak man nag ci lu baree baree baree baree bare ma bëgg nag président nga jàppale ko ci lépp ak association bi nga xam ni ñoom la àndal li téer la ci marché bi parce que ñoom it ay ndaw lañu te ay liggéeykat lañu te ñu nangoo daan seen doole lañu te vraiment koo ci gis li bootu ci ginnaawam bari na li bootu ci ginnaawam bari na te ku leen jàppale rek lañuy ñuy wër te ku leen jàppale rek lañ bëgg ndax ñoom ñëpp ay néew di doole lañu te nangu nañoo liggéey jaamu yàlla jàpp seen bopp. te am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar man de fu ma toog ci kaw suuf ak fu ma ferenku ci sama kër ak ci mbedd dama lay waxtaanee parce que dafa am loo ma ma gis te gëm naa ni tey bu la yàlla joxee réew mii coono dana fi jeex souffrir dana fi jeex semence bi dana jeex ndaw ñi dana nu liggéey mag ñi doon xëy ci lijjanti ji sax dana mën a toog ci kër ñi jaamu yàlla waaw man loolu gëm naa ko man parce xam naa ni moom. su la yàlla joxee Sénégal incha allah fan nga ko bëgg a yóbbu ak la nga yéene réew mi ci kàttanu yàlla incha allah maanaam mag ñi nga xam dañ doon génn sax bu ñu xëyee suba dem di lijjanti ji danañ toog ci kër di jaamu yàlla te ndaw ñi danañ am liggéey man loolu wér na ma kon yàlla na la ko yàlla jox Sénégal gii yàlla na la ko yàlla jox Boubacar ñun am nañ ci yaakaar te yaakaar jooju ñu am ci yow yàlla boo ko yàlla tas yàlla na yàlla yaakaar ndax suñu xol sedd na ndax vraiment euh, xëy na ki lay door a gis moo lay laajte waaye la xam jàng sa histoire xam fi nga jaar danañu xam ni kii Sénégal ko ñor te bu ñu ko joxee réew mii dana ko teg fi mu ko war a teg te dana ko yóbbu fi fi ñu am yaakaar ni dana ko fa yóbbu dana ko fa yóbbu ci kàttanu yàlla kon président ñu ngi lay ñaanal yàlla bàyyi la fi ci sunu kanam ñuy ànd di dox ci lii di yëngu euh, lii nag des na départ la rek maanaam jéego biy door a génn la waaye cëy cëy bu ñu boolee sunu doole nañu ànd lëkkaloo. nañu and lëkkaloo ta bañ a naxante te ñu suñu président Boubacar Camara te ko défé duñu ko ko suñu suñu vraiment président kontaan nañu nous ngi lay sante nous suñu xol aminta yow man sa fay vraiment machallah, président kontaan naa te boo rek war nga ñu intervenir responsable jeune bu si présenté wu. salaamaaleykum maa ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp ah, di jégalu aussi si parole yi ñuy yëkkati jëmale ko si yéen parce que kilifa ngeen. donc man maa ngi tudd Mouhamad nekk secrétaire général bu ATS association TER yi donc damay wax ci turu ATS di rafetlu aussi seen teewaay parce que tey yaakaar naa ne comprendre ngeen que ni développement au Sénégal mu ngi mën a jaare ci jeunes yi te tey fii ñu fi toog ñëpp ay jeunes lañ ATS tamit ñi ko composé ay jeunes lañ donc nak tay bu bu ngeen bo déplacer wu monsieur le président Boubacar Camara ñew fi dañ koy rafetlu di la dalal jàmm aussi timit di wax ni ñun on est là pour képp ku ñu fi teewal ñu nekkal la fi ñun jeunes yi parce que dañu sonn ci naxaate yi depuis 1960 bu ñu amee indépendance ba léegi politiciens dañuy nax rek donc man dama lay xool ci ay bët ni la ku ñu naxul teewal ñu fi ñun yow lañ fi nekkal donc bëgguma kàddu yu gudd parce que gudd na maa ngi jégalu ah jëf di nuyu Mouhamad mii nga xam ni moo mujjee yëkkati kàddoom léegi mu nuyu ñu mbooleem ñi fi jaar kenn ku nekk li ko tàmbalee ci Abdoul Aziz mi njëkk a jël ba ci soxna Aminatu ak Góora ak soxna May ba ci Leena mii ñuy nuyu mboolem ñiñ fekk ñëpp ci jàmm gën si ñu ànd ak Mor mi nga xam ni mooy coordonnateur président ci département bi yëpp ànd ànd ak Momar ak Amina ak sunu jigéen bu baax bii nga xam ne kenn la ci moor moom it ñëw di jàppale di liggéeyal président Boubacar Camara hmm? soxna Ndeye Awa waaw ñu ngi koy nuyu bu baax a baax taxawaayam rafet na di nuyu soxna Bann mi nga xam ni moom dafa nekkal président Boubacar Camara yëmbal noor ak sunu waajur wi mu àndal soo na Ndeye daraame démb rek ñoo nekkoon ci ñoom leena ñu ngi lay nuyu li nga def. moo rafet ndax yow sa digganteeg président dara xaju ci bul xaar sax ku lay yëgal soo déggee ñu ne président ngi ñëw fii rek demal te loolu nga def mooy lu rafet ndax ni nga bëggee président ak ni nga ko fonkee président day xam ne sama gaynde mooy kii nga xamante ni mooy leena kon leena ñu ngi lay nuyu bu baax yaak ñi nga àndal ñëpp di nuy bu baax soxna Aminta mi nga xam ni moom lañu fekk si te mu wax ay kàddu yu rafet. te ñi fi nekk ñëpp dégg ko kàddu yi ñëw ci président Boubacar Camara ñëw ci digganteem ak soxna May te loolu mooy lu rafet ay nit bu ñuy ànd ànd ba yàgg dara waru leen tàqale te politique àdduna rek la yam alalu àdduna àdduna la yam li am solo mooy kóllëre alxuraan dafa wax ni on fi bil ahdi inal ahdi kaana masulan na ngeen fonki kóllëre fonki àq dëkkandoo ndax ba léegi yàlla dinañ ko laaj président mii nag woowul kenn ci xiiroo ak ci ŋaayoo fi mu woo nit ñi mooy nañ booloo bokk ndey bokk baay ànd ngir yàlla liggéeyi réew mi ndax ñun ñëpp ñoo bokk lu ñu ñor loolu la woote moom te yàlla na ko ci yàlla defal jàmm. di nuyu góor a chef de quartier di la jox sa wàccuwaay muy ko am jom président li mu wax ni dëgg la président déplacé wu na dem ba Seras seeti ko mu recevoir ko ak ay kilifaam saafonte ak moom taxaw fa taxawaay bu rafet góor ñu ngi lay nuyu bu baax. di nuyu tailleur yi nga xam ne ñoo toog nii am nañ ci ay wëllëre am nañ ci ay xarit di jox seen wàccuwaay bu baax. xamne ay jeune ngeen meñu am jom ngeen sen morom rek ñoo nek ci dekk bi nek ci lenen ngeen am jom tok sen place yor sen njabot di gorlu kon li ngeen bëgg moy ngeen xamé bu baax ak ràññeete mo nek ci yeen ngeen xam rew mi fi mu tollu ngeen xol kan ngeen wara andal ngir fas yéene liggéey rew mi ndax yeen su ngeen ak di ngeen dem su ngeen politik ak dengan di ngeen dem ndax sen place ngeen tok jang sen métier mën ko di ci liggéey di ci jaamu yalla di ci dundal sen kon nak mohammed li nga wax sank ne dañoo sonn ci politi politiciens yi fi nekk loolu ñëpp ci sonn maa ngi nuyu lawbe président Boubacar Camara maa lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax li mu wax ñëpp ci sonn dama leen di leeral rek ñi fiy jaar di naxi ak politiciens yi ak kii duñu benn li may wax ne am na ñoo xam ne ñu ci jotaay bi xam nañ ma bu baax su ma demee ba jël kàddu to ànd ak moom di likkati lii di ko wax am na lu tax réew mi nit ñi dañoo sonn ñii ñu bàyyi ci nguur gi ñu pasar xaalis bi. ak pasar pasare alal ji defaluñu ci dara liggéeyuñu ci dara te Sénégal ñun ñëpp ñu bokk ko duñ ko bàyyeeg ñoom dañuy jug booloo nekk benn xool ki nu am ci moom yaakaar muy ko am xam-xam ku am pas-pas ku am ngëm-ngëm ku mën a jàng ku jub xocc tegu ci yoon te mooy le président Boubacar Camara waxantuwuma de tagguma ko ay jikkoom laa koy waxal inspecteur général d'état la mu def retraite nekk docteur en droit di avocat ca baro France ñetti ministère yi fi nekkoon ci jamonoy Abdoulaye Wade di fonction yi gënoon a rëy muy infrastructure transport aérien interna coopération internationale ministre énergie yooyu yëpp moom mii moo nekkoon secrétaire général ministère yooyu. liggéey ci liggéey bu mucc ayib bi fi Abdoulaye Wade nekkee amul fenn fu ñu xaalis bitim réew te du jaar ci président Boubacar Camara amul benn tëli bi muy président yi wala péage route nationale yi ci loxoom la jaar plan tàkkal xalaatam la gaynde 2000 xalaatam la bi mu fi toogee jóge ci loolu liggéeyal Sénégal liggéey bu wér nekk directeur général bu douane diggante 2000 ba 2004 2000 ba 2001 moo njëkk a atteindre bar bi jël 200 milliards ci ay bénéfices ak ay recettes dugal ko ci budget Sénégal lu kenn mu sore jël pour douane teg ko teg pour douane jël douane yi nga xam ne dañuy liggéey ngir Sénégal liggéey ngir seen réew jël seeni doom di leen dugal ak seen njaboot ñu mën faa nekk ngir mën a liggéeyal seen ahlan wa sahlan ñu ngi leen baax bismillah jërë ngeen ñi suñu bokk nañ ñun ñëpp kon mu mel mu mel ni Sénégal fii mu toll nit ñi war nañoo jug lii may wax ñi fi nekk ñëpp xam nañ dëkk la Sénégal fii mu toll ku fi mës a téye benn poste de responsabilité benn fonction boo mës a téye ci dëkk bii boo ko fi bàyyee dinañ la audité wala ñu jiñ la sàcc wala ñu jiñ la détournement xool leen fonction yim jaar yëpp loxoom taxul fenn mën naa taxaw yëkkati loxoom laaj réew mi jàmmaar ak Macky Sall ñoom du ñu may jàkkaarloog Macky Sall waaye lu ko may loolu mooy am jom am ngor am dignité xam lan mooy fonction ak lan mooy responsabilité ak nan la ñuy yoree réew ak nan la ñu nasee réew ak nan la ñuy defaree réew téye ko bu ko def moom mii mu bokk ci gouvernement Macky Sall Macky Sall ba mu ñëw ni ko pour jàmmaarloog man xoolal poste de responsabilité bu la neex ci sama nguur gi ma jox la ko mu ne ko duma ko def man Sénégal moom ma ñor damay ñëw liggéeyal sama kon kii am na waaye yëpp nag bu ci jaaree nekk as gor ak ak lim bàyyi lépp waruñoo gën a gore ñun ñi nga xam ne dañoo bëgg réew mi ñun ñu ànd ak moom li tax ñu ànd ak moom mooy bokk pas-pas bu ñemee ba jawar président de la république jël saagu 5 millions fu mu toll di ko jënd di ko doxantoo ndax dafa gën a jekk soxna si ndax dafa gën a jekk soxna si ndax dafa gën a jekk soxna si jekk gën a jëna a jekk soxna may déedéet privilège yooyu mu am ñu jox ko ko dafa am nekk jabar président de la république am lu mu war a mën dafa war a am lu mu war a doxale bu ñu nee doom président de la république làqagul fanweeri at di takk montre treize millions barki dem lañ jël Bassirou Faye dóor ko ni tenn bal ngir lan ci ay bourse jël Fallou Sène dóor ko bal ngir ay bourse réew mi toog di seetaan doomu président de la république dina cent et quelques milliards Sénégal war nañoo jug jóg jot na Macky Sall moomul réew mi ministre yi moomuñu Mouhamed Niassane tëdd réew mi maam li maamul moo duyu tëdd réew mi maam Cheikh Ibra Fall tëdd réew mi maam Cheikh Ahmadou Bamba tëdd kenn waxta seetaan ñu koy pasar pasare kon nii rek la président nag soxlawul ko xamul dara ku mënul dara daa soxla ñu am ay responsabilité mu may nañ tailleur yi ak jom yor seen njaboot nangoo liggéey di jaamu yàlla tegu ci mu woo leen ne leen ñëw leen ñu ànd waxul kenn nga ñëw jàppale ma ñëw leen ñu ànd ñu defar Sénégal kon président ñun ñëpp a ko amee njukkal engagement bi mu jël nag ku Sénégal ñor di nga jug ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ni hubbul watan minal iman bëgg réew ci gëm yàlla bokk kon président ñun ñëpp ñu ngi sa ginnaaw de passage maa ngi nuyu soxna may bu baax président jàmbaar dëgg ngi nii soxna Aminta soxna may sa doomu ndey la na ngeen gën a ànd ni nga ko waxee waxi gor nga wax te moom it mu wax waxi gor soxna may mii bokk na ci jigéen yi mën ci président koo koy jëg saala way barki sëñ may sa jegey baam say la ñuy wooye yaayam jàppale jigéen ñi dimbale jigéen ñi xale boo doon taxawul tali maam jaara taxawal ndax may jee xam nga lu tax jërëjëf te liggéey duñu utal nga leen liggéey may jee dama kàlla may sa jàng lañu wooye sa baay. way wëndeelu sa baay da daan faj buum di ngay doomu nday ami dëb. waxal ca kaw. te nag sa ndey bu dee joxe ngay doomi gal te doomi gal day ñeme jam-jam. te nag bu joxe barke kenn du nga bëgg di ànd ak te rek tax ku la gis-gis seen ànd bi ku ko nar a yàq yàlla nga dee doo dee petit dee de grand dee rek ngay dee may jee sama jabar yaa ko liggéey muy liggéey jàngal ko métier jox ko diplôme def si moom xam-xam ju bari tabaski day jot du ma jënd yére korite day jot du ma jënd yére su ma neexee dem toog programme ba heure bu ma neex ñoo balance kër pa nanki ba heure jot ma dem tëdd waaye may jee yàlla sa jàmm yàgg tubaar kàlla li nga def si salon yi li nga def si salon yi Sénégal teg nañ seen bët man dama lay xam du tey damaa mën a wax si yow moo tax may wax waaye képp di jëm maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam présent dëkk bi kenn moom ko defal dëkk bi rek la foofu lay daanaka borom yàgg yàgg si. te dëkk bi boole defar dëkk bi. maanaam ci may dama ciy bëgg a wax ku wax ci may dama ciy bëgg a wax ku waxul ci moom dama ciy bëgg a wax. président dafa am benn affaire boo xamante nii dafa nekk ci may mi koo xamante ni. li ma ko gën a fonk. xam nga nit sax nga ànd ak moom ko wala nga lii ko mais am jikko ji nekk ci moom yoo xamante ni di nga ko ko bëggee mën nga nag. bëgg nit te doo xam loo ko bëggee mais moom bëgg naa ko ci ndax ñu toog mbooloo toog papaam wax ci moom lu rafet mu nekk ci moom mu leer ma ni moo nekk ci moom papaam bàyyi ko fi ba mu ko fi bàyyeeg léegi ay fukki at ak nangam la su dul woon dëgg kon dañ na bu yàgg mais rakk yi balaa muy lijjanti ñi mu bokkal ndey ak baay ñu dem école day lijjanti ay doomu baayam balaa mu leen di lijjanti ren dama ma woo ami nangam laa soxla nag damay lijjanti diw ak diw ak diw te bàyyi la bokk ak ñoom bokk tëg ñoom ndey man kii su ma amee sama bés ñu koy gërëm ba suba daf may neex man moom bi may ànd ak moom xam na man xam naa dama wax xat balaa ngay wax sax ma jaxase wax mais moom bi may ànd ak moom mu dal bu waree xuloo ma xuloo bu waree xeex ma xeex mais après moom ci moom dama jàpp ci moom bu ma xuloo nit da koy neexaliwaat su ma defantee nit ba ne banaa ko moom da koy neexaliwaat te dina ñëw wax ma ci kooku lu dul dëgg man ba ma waxaat ak kooku defaat ak moom nii du bàyyi kenn du mere kenn du wax lu bon du wax lu ñaaw moom bàyyi kenn du bàyyi kenn boo ko defee lu bon du bàyyi su may ànd ak moom ci politique nag dama bëgg mu leer maanaam su ma ko fekkee ci yow nekk ci yow borom xolu jamaa maanaam bu demoon ba jër tege nii muy jër bu ma ko jiitoo

dañoo war di wax yu baax yi ngir nit ñi xewil yu bon yi dañoo war di wax yu baax yi ngir nit ñi xewil yu bon yi yu baax yi dafa am njariñ de buñ ko xeeb ñii defante yu baax ak di def yu baax nañ leen di wax nit ñi xam leen ngir mën roylu ci ñoom dafa am valeur kon Soxna May lii mu def aminta moo njëkk a taxaw yëkkati kàddu sant ko te dëgg la ci moom. kon yow Aminta kenn mënu la fay sa taxawaay rafet na damay seede rek président dañoo ànd ak yow dem ba ci sëriñ Muntaxa muy xalif général des Mourides ñu ànd ak moom soxna May bi ñëwee ba ci sëriñ Muntaxa ma jël kàddu wax ak moom président jël kàddu wax ak moom mu ne ko jox naa la ndigal ci lii nga nekk te dinaa la ci ñaanal sëñ Muntaxa ma wax loolu yàlla na fi yàgg tànt ak wér barke sëñ Touba bi ma pare ne ma doon wax ak sëñ Muntaxa nit ñi di xaw a kii. ba ma génnee soxna may ni ma yow mi ne lii nga wax sëñ Muntaxa ci président dagal naa la fukki mètre jasneer ak ñaar jox la ko addi sëñ Tuubaa te man awma problème jasneer man sama soxna saa ñëw valise yi du ci def benn yére ay jasneer rek la ci def ngir man barke sëñ Tuubaa mais kuy def lu baax aljazaawu lixsaan ilal ixsaan kuy def lu baax da nga koo war a wax ba mu ñëw ba ci président mi wax ko ko xam nga lu mu wax dafa ne ma soxna may teralu la man la teral waaye dina xam ni man lay jëflanteel kon loolu mooy jëf ju baax bu loolu jàllee parrainage yi ñu jëm président li ci liggéey amul benn jigéen bu ko ci man barke sëñ Tuubaa parrainage yi mu jox président Boubacar Camara mboolem jigéen yi ci parti bi yëpp amul benn jigéen bu ci mën soxna May Dieng loolu nag jëfam la kuy def lu baax dañ ko war a encouragé mu góorgóorlu may fi nga teg sa tànk fii rek la góorgóorlul ndaw nga yaa ngi ci àdduna di lu man xam naa la bu baax. bu baax a baax a baax a baax jotaay boolewuma ak yow li ma la xam mooy am jom takk sa sër nangoo liggéey xam fi nga teg sa tànk ndax maa yow ñoo dëkk loolu nga nekk tamit moom la sa morom yi yëpp nekk ndax moo tax ñu mën a ànd xeer xeer lay àndal soo àndeek nen toj ko kon boo nekkee fii dañ lay seedeel sa jëf ji nga teg ba sa naw la yëpp di la ko seedeel fii nga teg sa tànk fii la yàlla na la cat seexlu yàlla na la yàlla musal ci lamañ ak cat di ko ñaanal aminta mii nga xam ne moo woote sa bii rëy na riche na ndax li tax moy senegal fi mu tollu nit ñi war nañu yew nit ñi nekk ñu fi tag kenn ak di waxal kenn ay ay nangam de kuy def lu baax dañ koy wax kuy def lu baax di wax lu baax di nga am lu baax kuy def leneen di wax leneen nak di nga am leneen president mi nak bam mu ñu baax ñi la mëna andal ak ñu nangoo liggey ak ñu jup ak ñu tegu ci yoon motax mu dëxuñu bu ko nekkon bi ko Macky Sall mu jël poste de responsabilité teyeko dem xalisam di toog ci ruqam waaye jomb na lool day jël otoom taal ko def ci essence am jël nit di leen teral ngir yàlla ak jëmmi yonent bi fu mu def defal lu baax góor gi wax na ko léegi jàkka yi mu def simaam ah ak ay feeram suñ ko doon wax kenn du xam kañ lay jeex te bugul kenn tudd ko ba ci église yi kër sëñ Touba gee jàkkaarloog résidence Cheikhul Khadim bi jàkkaarloog jumaay sëñ Touba ji mboolem climatiseur ya fa nekk nit ñi dal ci ren ci màggal gi ya fa nekk yëpp moom mi moo ko jënd te kenn yóbbu man li ma wax lu ma xam la Cheikh Bass moom Serigne Abdoul Khadir dafa ne bërit ñëw ci biir kees yi daan na bi moom neex na lool te sedd na daal di teel xool climatiseur daan nit ñi dafa mel dafa sedd xanaa jógewul fii wax loolu sëñ Cheikh Bintu sëñ Cheikh Bintu ni ko lii day taalibeb Serigne Moustapha moom Serigne Saliou bi ñuy wax Boubacar Camara moo ko jënd def ko àddee sëñ Touba ngir ñu ci sëñ te mboolem ambassadeur yi damay wax lu ma leer man mboolem ambassadeur yi fa ne yi màggal sa yëpp ak autorité yi nekk foofu yëpp climatiseur yi leen doon ëpp yow mi yaa jënd ba ci la président de la république fam daloon climatiseur yi yoo yaa ko jënd barke sëñ Tuubaa kon président yow yaa yelloo réew mi nit nañu nañ yeewu xam li xew jël réew mi teg ko sa loxo nga liggéey ko Sénégal jëm ci kanam ñu jël Macky Sall pousse ko ndànk teg ko fee jël réew mi jox la ko ànd ak yow jël mi jébbal ko kon maa ngi daaneel kaddu yi ah dafa bëgg wax da bëgg wax kon dañ doon jox président Boubacar kamara waaye soxna seneen dafa bëgg a yëkkati kaddu te ci yëf la bokk soxna Nogaye kon soxna Nogaye vous la parole bismillah. asalaamaaleykum maa ngi nuyu président Boubacar Camara di nuyu Mor Ndiaye. di nuyu sama tonton bi toog nga xam ne dafa bàyyi seetam bi mu ànd ak man fu ne laa ko yóbbu mooy sama commissaire au compte defe naa bi ma leen indilee bureau bi moom mii soxnaam kee mooy ñetteelam kii ñeenteelam mooy sama commissaire au compte sama bureau. waaw vieux Ndiaye mais mag rakkam mooy adjoint sama adjoint léegi man maa ngi nuyu Boubacar di ko sant di sant Mor Ndiaye Boubacar nag góor a moo ma booleeg moom bi ma booleek moom nag li ko gën a dëgëral ma gis ku ko xam muy sama borom kër bi ma àndaloon fii. mu yar ko mu bokk ak rakkam benn classe ba ni ñu am bac ñu dëkk ci benn gox tamit bi ma waxee ma ne ko ah man daal ay Boubacar Camara yooyu mu daal di may tegal waxal ma Boubacar waxal ma keroog bi may recevoir ay minuit écart la ma recevoir bureau man nag aw ma lu may wax. xam naa ne daal xam naa kan mooy Boubacar kamara maa ngi ànd ak moom di liggéey moom képp ku ànd ak moom bu yàggee di nga ko xam bi ñu ma woowee ne naa ñëw fekk si ko fii dama ne man du ma déplacé wu laa wax moor defe naa démb ay minuit sama kër la leen fekk yow ak Aziz man leen man du ma déplacé wu ngeen ne ma ci Aminta lay dem man leen kook sama doomu ndey la ndaxte maa ngi moom dañoo bokk nijaay kon Aminta fu mu nekk rek man war na maa mun a déplacé wu dem ko fa moom tamit mu nekk ku ñàkk ci ñaan nag gis naa li muy liggéey ak yi ci marché bi May Dieng dégg naa ko mais mosuma ko gis bi ma koy dégg ba ëpp na 10 ans ci benn xale bu jigéen buñ naan Ami Sañ mu mu bokkoon ci say affaire di fréquenter sama mag bu jigéen defe naa mi ngi luye woon ci kër tonton bi presque léegi nag bu Boubacar ñu fas yéene ko liggéeyal nate man xam naa ne xam naa ko li sëñ bi wax ci moom am na sax lu mu bàyyi ci moom mais nag gën naa ko bëggati ba mu duggee ci njaboot sëñ Saliou ndaxte man biir kër sëñ mu Moustapha Saliou su ma fa demee nii laay duggee ci biir kër ga biir kër sëñ seexam sëñ Saliou ci gàmmu gi soxna nday ndaw moo ma dalal daanaka aawa sëñ seexam sëñ Saliou ma ànd ak ñi fa ma doon sëy di dem foofu kon man gën naa la jàpp mais kii li ma xam ci moom moom bëri na li ma wax ci moom bëri na ndaxte sama borom kër bi jógee fii nee na ma bis papaam ne moom dox na fa ay jéego ñoom bi ñu koy xam ay tuut tànk lañ te nitu démb lay téye soppeekuwul daal ndaxte ASC bi mu yoroon sama jëkkër di ci football nekk jeune ba léegi mooy président bi te boobu ñoom nee nañ bi ñuy wax ne moom mi ngi dem douane moom mii ñoom dañu amoon lu leen naqari ndax ay gratam ay diplôme am yo noonu mais yàlla dimbale ko nag lu ci musa a li ko sëñ bi waxee noonu noonu la ko téewee ah comme nag ñun ñoo nekk jàmm gën si kàmbaaw ñu fës ko yéenee liggéeyal mais nag aminta mii moom xaw ma may jeen de mais moom xam naa ko gis naa ni muy liggéeyee ak tailleur yi tamit ndaxte man nee na sax déplacé woon naa ñëw di ko booleeg moom boobu yow xaw ma la mais vraiment xam naa ne ku dëggu la du def lu àndul a tailleur yi ci ginnaaw ndax tailleur yi tamit damay liggéey ak ñoom ndax man wax naa ne la ku nekk douane sa bëgguma woon a waxatee ak yow sa bureau ndax nee naa la man douane ñoo ma toroxal ndax dañu nangu sama marchandise boo xamante ni booleeg ama amaan ma 800000 xam nga loolu wax naa la ma wax fi ma jaar yëpp yow it xam nga mais euh, ñun daal nañ ñaan yàlla rek li soxna si wax sa law bi bi wax ñu xuus daal fekk si la pale loolu la ñuy ñaan yàlla jërëjëf di ñaanal nag Aziz mii nag ndaxte Aziz mii tamit nag yàqul dara de ndax minuit wi heure heure bu nekk ñëw na ñëw na kër ga mais nag di sant sama tonton bii bàyyi jabaram nag heure bu ma neexee ànd ak moom heure bu ma neexee dikk ak moom ñu bëgg nag euh, kii euh, président heure bu la soxlaa nag nga recevoiral ñu ko ndax daf maa bàyyeeg ñeenteelam bi nag heure bu ma soxlaa yóbbu ko waaw nijaayu aminta la vraiment lu mayul kenn nag may na ma ko waaw vraiment ñoo ngi sant ñoo ngi gërëm wasalaam waaw. jërëjëf soxna si yow soxna Nogay kàddu yi rafet na kon ñu teewlu. président jël kàddu wax nga dëgg li ñu war wax ci moom lépp waxuñu ko ndax bëgguñu ko catu dañoo bëgg mu xuus rek raam ndànk ba àgg pale ba ñu ànd ak moom lawbe lawbe ñëw dar ñu ñun ñëpp rek ñu ànd ak président diggante ak sëriñ saaliw nag dinaa ci ñëw tuuti sëriñ Saliou yàlla dogal na moom mii Serigne Saliou daan na toog ba trois heures du matin di ko xaar mu ñëw ngir mu waxtaan ak moom man lu ma am sëñ Touba moom ma ko gënal. man sëñ tubaa rek moo may teral rus naa di wax ci kaw suuf lu dul dëgg rawatina ci sëñ daan na toog xéewalu ba noppi moom sëñ Saliou di xaar président fu mu ñëw war a nekk te président ngi war a déparé ndakaaru ñëw mu xaar ko bu xéewalu ba noppi mu jox ko kii dafa bokk ci yëf yi te it réew mi nag fi mu toll nit ñi war nañoo bàyyi xel ba ñëwee président de la république nekk fi naan ay salaatu ala fatiha ak ay ay rajaxtu anil mawla ñu war a yor réew mi téye ko ñu xam ñi diina ñu ñor ak ñi diina ñorul diina dafa am ñu ñor ak ñu ñorul ku diina ñorul nga màgg ci réew mii nga ni diina ñor na la nga dem ba am juróom fukki at ak nangam te mënoo xam salaatu ala nabi wala salaatul fatiha nañ xam ni kii diina ñoru la moom diina ñor na ko buñ demee Poroxaan sëñ Moustapha Basir barke sëñ Mamba lii moom waxuma ko man lu ma bëgg xam ci yoonu murit xam ko yi may wax yëpp moom waxuma ko lu ma bëgg a xam ci yoonu murit xam ko daaray sëñ Moustapha Bassir Dieng daaray Porokhane mam Jaara la ko sëriñ Moustapha Bassir tabaxee ay simaam moo ci njëkk tab bi ndax nekkoon na PCA bu soko sim buñ ko fate mboolem fuñ nekk ci réew mi damay lim ñooñu tarixa boo dem jëfam ma nga fa kon président yàlla na la cat seexlu ñu ngi lay ñaanal fii nga teg sa tànk fii rek la gaay ñun ñoo bokk terrain bi kii kii ma jàkkaarool xam na ma bu baax bu baax a baax ñun ñoo bokk terrain bi du ma ko fi andi di wax rek li ma wax lu ma xam la kuñ mën a jàpp ci gars yi ma fi gis waat naa ci Cheikhul Khadim kii moo ko gën xam nga lu tax jikkoom moo tax ak njubam gars yi fi nekk moo leen ëpp xam-xam fuuf moo leen gën a jub moo leen dàq jàng buñ demee ba nga xamante ni dëkk yi ñu wër ñun. dañuy nek ci moment de crise ci ay difficulté mom mi lañuy wo woo jël ko avion mu déplacer wu décanté sen situation ñu fay ko xaalisam mu ñëwaat Sénégal te kenn du ko yëg. kon lepp lu ko mëna wax monsieur le président Boubacar Camara bu ñemee le 29 février inshallah na ñëpp ne vive président Babacar Camara mu tok palais de la république jël ndam li ñu ak mom monsieur le président vous avez la parole. mais il faut que ñu wax parce que tey nous... xol dafa neex parce que boo ñëwee ci jataay fekk fa sa chéri parce que loolu laa ko mën a tuddee koo xam ne jëkkëram suma rakk la ñu màggandoo bi may xam jëkkëram boobu xamul ne jëkkëram dina ko xam ñu daje mu bëgg a engagé wu jëkkër ji gën ko encouragé boo ñëwee dajeeg moom fii da ciy kontaan boo ñëwee fekk ci soxna Aminta jiite tay dina ci dellu ci man artisan yi dama ci am programme bo xamné dama ko lolu moo tax ma gëna ci bo ak artisan parce que fi ñu jëm ci Sénégal pour développer ku jaarul ci ñom do ko cda kon nag ñu ñëwee jàmbaar la yàgg la dégg dañuy kon kon baax di wax ci yow ñëpp lenn rek li ma dal ci moom dafa doy waar dañu dem Seras ma fekk ko fa am cofeel ci moom mu am cofeel ci man mu dellu si siège ba ñu waxtaan mu won ma cofeel ma won ko cofeel ba léegi boo gisee bu jëlee parole sax soo gisee kanam gi ni muy leere ak kontaan bi ak ree ji muy àndal rek nga xam ne li muy wax dafa nekk dëgg ci moom kon nag yàlla na yàlla dëgëral lépp kontaan nañ trop tonton ñu ngi lay nuyu yow it di la ziar di la sant ci ni nga jàppee sunu chéri bi foo am chéri am fa jàmbaaru liggéeykat ñëw nag am fa honorable ma ne may jee moom bu fi nekkee député di ngeen gis député bu mën a solu man kay li may ragal rek mooy muy solu ba session bi jeex nag mu ñëw ñu ne ko ñu ne ko session bi jeex na bu nekk fi di defaraat maquillage maquillage bi kay yow loo am nag ko bëri ni ko baax la rek mais xam sama jaase boobu xaw ma ki ñu boole muy maam Cheikh Ibrahima nekk kenn ci man bi ñu booleeg léegi amul dara lu ci xam naa ne moom bés bu may ñëw sa koñ moom kenn du fa xeeñ. dañ koy wàcce rek. nga jàpp rek jàpp man am na lu ma xam ci yow xam naa ne daal nit ñi ñoo la gënal sa bopp loolu moom moom naa ci seet. gis naa bi ma la xam kas néew loolu laa la njëkk a wax dama ne la yow est-ce parce que yow loo am jox ko nit ñi loolu nag yàlla moo la koy fay ngaa nag say yaay faal ak say baay faal loolu yàlla waaw waxtaanu mbokk yëmbal ñëw soxna Ban démb rek soxna Dram kontaan ba ah, jàmbaar jigéen soxna Awa sa doom bàyyi gi kii moor moo ñu boole moom it mu nekk jàmm sa bi soo ñëwee déglu rek lu yàq sama liggéey boo ñëwee fekk sa chéri fekk jàmbaaru liggéeykat fekk fa sa honorable fekk fay amazon fekk fa jàmbaaru liggéeykat yi nga xam ne lu ne ñu koy def ci jigéen ñi ba pare fekk fa sa gaynde mais moo tax ma kon jigéen ñi am émission bu ñuy waaj pour wane naka la jigéen ñi ak xale yi jigéen ñi ndaw yi mën a mënal seen parce que tant que ñu mëna luñu seen bop Sénégal lu jàll kat am nañ ci programme bo xamné ñoo boo xam ne lépp luy alal ci Sénégal ci budget dañuy jël 25% ci commande jox ko femmes pour ñu liggéey parce que femmes lo leen dox ñu te bo gisee foyer bi ñuy foyer jigéen ñi Sénégal mooy dañ leen di gëmloo ne jox lañ leen importance alors que jox ñu leen importance. 19 2008 am na une loi d'orientation pour aider femmes La loi bi dafa ne 15 15 la wax ci budget état bi 100 100 yu nekk téeméer yu nekk fukki ak juróom dañ ko war a jox ci kii. loi boobu ba tey may wax ak yow amul décret d'application kenn mosu ko appliqué Sénégal kenn jógul amul. loolu du kàll kàll boo ko seetloo 5 pour cent ci jigéen ñi rek ñoom ñooy dem laaj ci marché public yi maanaam alal bi nga xam ne dañ koy état bi moo koy joxe liggéey ci 5 yi laajte trois pour cent rek ñoo ci am marché te 3 pour cent yi ci am marché ñu ci ëpp balaa moo yegg ñu taanu parce que yéex dañ leen di yéex a fay yéex fay boo xam ne bii kenn ñun dugguñu ci politique pour caaxaan dañu dugg ci politique pour redresser Sénégal. te xam nañu ruq yi ñu war a redressé femmes yi xam nañu fi ñuy jëlee xaalis bi xam nañu naka la ñuy def ba ñu jóg looloo ñu dal ci bi 1963 la ñu supprimer office sénégalais de l' artisanat Mamadou Dia moo ko taxaw la bi mu xuloog Senghor mu dem Senghor supprimer office sénégalais de l' artisanat mais loolu moo solution nga xam ne képp kuy artisan muy tailleur muy cordonnier muy coiffeur ñëpp ñi nga xam ne dañuy liggéey fii te seen liggéey des fii Sénégal nga jox leen moyen yow tailleur bu ñu la lebalee machine buy jar trois la fay ko dix ba pare nga moom sa machine doo ko def loolu yombul état programme yooyu la ñuy war a taxawal sunu office sénégalais de l'artisanat la taxawalaat def ci 350 milliards def ko ci marché financier bi mu indi ñu 700 milliards Di ngeen di rembourser day ñëwaat ci fonds boobu fonds boobu mooy tax dañuy am place yoo xam ne dëkk bu nekk dañ fay aménagé pour espace tailleur état bi moo koy aménagé gratuitement boo duggee da ngay loué location boo xam ne bii da nga koy fay di fay équipement bi lay boo paree nga moom sa boo demee ba am doole place bi tuuti ci yow bu la neexee nga dem feneen nga jox ko kereen yow nga dem ubbil sa bopp noonu lañ koy defee ba alal bi daj ci réew. am réew xam-xam a koy yor de. kon nag ndóol moom la ñuy dindi ci réew. réew responsabilité wax naa ko démb yëmbal responsabilité état ci réew mooy fexe ba xale yi jàng fexe ba xale yi faju ak mag ñi ñëpp faj ba wér fexe ba ñëpp yaru yaru diine yaru cosaan yaru aada yaru xam lan mooy civisme lan mooy lu ñëpp bokk ba pare nag nga aar ñëpp ba nga xam ne kenn du leen agressé kenn du jël seen alal kenn du këf seen dara dinañu ab dëkkuwaay yoo xam ne inondation du leen ko fekk ba pare nag nga dundal leen dundal entreprise yi dundal nit dundal mag ñi ku liggéey ba ar ba retraité di wëri dépense mais foofu la al ko commencé boo liggéeyee ba retraité war nga am minimum pièce koo xam ne bii état moo la koy jox parce que sa ñax ak sa doole ak sa deret yëpp da ko def ci réew mi loolu yomb na ñun calcul bi ñuy ñu defagum pour le moment dinañu fexe ba képp ku am 60 ans di góor di nga am au moins 30 000 francs par mois boo xam ne bii dina tax au moins sa mbiru bopp mu am doole jigéen à partir de 55 ñun

boo leen bàyyee lii ñu defoon la ñuy defaat dañuy delloo buum nga ca booy booy góom bi fi nekk metti na yàgg góom bi am na booy booy jël nañu buum teg ko ci Macky Sall moom dafa ñëw dangal buum ba ñëpp di yuux mu ne léegi may leen ma deuxième mandat mooy may leen ma ma delloo buum ba ca booy booy waaw loolu gën a ko noonu ñun nag buum bi la ñuy dagg buum bi lañuy ñuy daggat ba éducation benn parent doo ko joxe un franc ci fexe ba santé médicament yi nga xam ne maladie yi gën a dal ñi nga xam ne amuñu doole un franc duñ ko fay loolu boo ko defee wàññi nga ci budget famille yi lu bare location bi nga wàññi ci budget famille yu bare xale bi am sécurité waa loolu bu amee entreprise yi liggéey doole bi ñu am moo nekk suñu alal bi nekk suñu suuf ñu négocier ko négociation boo xam ne bii dina tax suñu entreprise sénégalais yi am liggéey

jam ñaajo la jëm yéen lan ngeen di wuti jam ñaajo milliard ko fu wut mille milliards nga jógee nga jógee gaar ba dem jam ñaajo man mi waxa yéen man mosuma sax dem jam ñaajo ay bâtiment nga fa teg ut ay tubaab ne leen yéen a yore plateforme industrielle nga ne mille milliards nga fa def ñun ñëpp ñu toog di seetaan te boo amee cent milliards yóbbu ko cinq yu jeex nga jël trois milliards jox ko artisan yi jeex muy ñaata 450 milliards éducation 6 000 milliards laa kii kooku kenn suuf si laa koy xam de waaw. santé damay def polyclinique commune bu ne polyclinique boo xam ne bii day am maternité am dentiste am lépp petit petit soin pour ay ay véhicule yoo xam auto oto yoo xam ne yi dafay am équipement médical yëpp ñuy wër dëkk yi ak gox goxaat yi. waaw ñu barke borom ma ma ne caaxaan baaxul ñëpp seen bëñ yi bën nañ ndax mënu caaxaan baaxul Sénégal bi réew boo xam ne mënoo sax assuré nit ñi ndox eau potable mënuñu ko kon nag su may daanelee rek mooy di leen sant yéen ñëpp di leen di leen wax ne nag ñun suñu mouvement li def dooleem li perte ñëpp def dooleem mooy que ñun dañuy wut ay jàmbaar bi ñu créé suñu mouvement dañu dem seet gox bu ne ñi fa am doole ñi nga xam ne nit ñi bëgg nañ leen nit ñi wóolu nañ boo demee ci ko fekk fa ku mel ni mbay jeex boo àndeek moom mais am na ñoo xam ne xamuñu ko faale wuñ ko mais faale nañu mbay jeex ñu ànd ak moom ñii ànd ak Aminata Fam ànd ak moom ñii ànd ak Mor Ndiaye nga xam ne lu la def na ko nekk cadre boo xam ne bii kenn mënu ko werante ah mu nga donc Mor Ndiaye mu nga wax ci moom léegi ñoom ñëpp ñoom bànn koñ boo dem da ngay seet ñi fa gën a baax gis ñi fa gën a nekk kilifa boo ñëwee ne paasow ñëpp dinañ xam ne paasow mii nit ñi respecté nañ ko nga ànd ak moom ah? nga yow ànd ak xarit yow nag xaw ma looy togg nag loolu ma maa wax mbir bi nag xaw loo fas yéenee togg bu ñu dem pale xaw ma daxin ngay togg looy togg suuf xam nga man nag dama fi mu ne nii man damaa yooy man moom juróom ak saay saay moom yaram bi ma sax lu muy lekk man fi mu ne nii waroon na ma wax li muy lekk bu may ma tudd sax ci ci ci poids bi waaw kon nag ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm yéen ñëpp Aziz